salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokk yi nga xam ni euh, yéen ñu topp ba léegi fii ci Tiwaawan euh, dëkku Seydil Hadji Malick tabaarakallahu famille bi di waajal guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Sy Khady tabaarakallahu di mag ci Serigne Adi si waaye jotaay bi sëtu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wala ay sëtu Serigne Touba ñëw ziyaar si. seen i mbokk seen i xarit seen i wëllëre ñuy njaboot ci kër Sidi Hadji Malick sëñ Babacar Mbacke mu kabbaru moom si Ibrahima maam Cheikh Anta Gaawaan mu ngi ni toog waaye tamit sëriñ Mam Moor Mbacke mu ngi ci jotaay bi sëriñ Jiili Mbacke mu ngi ci jotaay bi yaakaar naa ni euh, la mag ñi ñaanoon la nu bëggoon tey jii feeñ na ndax bi Cheikh Sidil Muxtaar toogee dafa wax ni bëggatul am murit di wax dara ab tijan bëggatul ab tijaan di wax dara am murit kon Serigne Babacar Mbacke mu kabbaroo ànd nag eh, ay mbokkam ak i rakkam ak i xaritam aki i taalibeem ak i wëllëreem waaye fekk si tamit Serigne Babacar si xadi xam ngeen ni kii toog. Eh, maam Cheikh Anta Gaawaan moo jur woy juram keroog bi Seydi malik Malick génne àdduna Cheikh du Bamba maamam la yebal njir mu ñëw jàll si ko kon yëf kon du hasard tabaarakallahu kon loolu leneen la loo xam ne feeñaan na ci kër eh, Seydi Hadj Malick waaye tabaarakallahu feeñaan na ci kër Cheikh Madou Bamba ndax ñaari kër yi du ñaari kër génn kër la ndax ñoo bokk maam Amadou Farimata la ak Thierno Farimati kii jur euh, soxna Mati mu jur Seydina Ousmane mu jur Seydi Hadji Malick kii moo jur Mame Balla Aïssa mu jur Mamour Anta Selli mu jur seex Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon Cheikh du Fadal da daan wax ni xaw tuuti rek ma doon tijaan kon nag li ñuy def mooy jël suñu kaddu jox Serigne Babacar Mbacke mu kabbaro mu am lenn lu mu indil ci gàmm gi waaye tamit nga wax nu tuuti Serigne Abdoul Aziz mi nga xam ni moo fi jóge bu yàggul doonoon koo xam ni ah, général la ci tarixa cheikh kooku bëggoon nga indil nu ci tuuti wax nu ci kon Mbacke ñu jox lu kaddu gi أعوذ ala man la nabiya baad sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zabir ritwan wa tamkin mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi am yéene yëkkati kàddu yoo xam ne dañu koy tuddee kàddu sëriñ bi ci sàkku gi mu sàkku ngir ñu jotal ko mbokki taalibe yépp Cheikh Babacar Mbacke mii fi toog Serigne Ibrahima Mbacke Ndar mooy woy waajuram Serigne Ibrahima Mbacke Ndar tur la woo xam ne turu kaw kese la waaye moom Serigne Touba moo ko tuddee woon boppam ñu koy wax Ahmadou Mbacke kenn ku ne xam na ne maam moo Ibra Fati ak maam Cheikh Anta Mbacke mi jur Serigne Ibra Mbacke Ndar ñoo bokk Momar Anta Sali bi Serigne bi nekkee gànnaar ci at moomu la jëloon soxna Marema Ndiaye. dénk ko sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak gaawaan waaye ci biir ndénkaane boobu newoon na ko ci di nga ci am doom bu góor nag ma ko tuddee man Ahmadou ñu dem ba sëriñ bi nekk gànnaar jóge géej ba dellu gànnaar maam Mor euh, sëriñ euh, maam Cheikh Anta Mbacke daal di ci am woy juram bu góor di sëriñ Ibra Mbacke Ndar bi maam Cerno Ibra Faati di dem gànnaar di seeti sëriñ bi ànd ak sëriñ boroom saam ci lañ jaar kër maam Cheikh Anta Mbacke maam Cheikh Anta dafa amoon kër ndar dëkk boobu ñu naan yi foofu la këram nekk pour wan la ci tegtal jamono jii fii ma dikke ñaa dëkk foofu la maam Cheikh Anta dëkk foofu la woy juróom bi ganee àdduna maam Thierno bi mu fa jaaree nag ci la fekk gan wi lewetal xar wi daal di ko ne Cheikh tuddee naa ko sama bopp mu ne ko nag kii ab turam jiitu na ak juddoom sëñ Tuubaa moo ma ne woon dinaa ci am doom bu góor te it moom lañ ko tuddee maam Thierno Ibra Faty moo sàkk woon ngir yor turu saayir bi ñu bàyyi ak sëñ turu baatin bi looloo tax ñu bari naan Serigne Ibra Mbacke Ndar waaye turam dëgg Serigne tubaa lañ ko tuddee moo jur Cheikh Babacar Mbacke mii wax na ma léegi ne ren laa mës a mag gàmmu si Tiwaawan te nee na gàmmu si gii kóllëre gi doxoon la diggante maam Cheikh Anta Mbacke way juram ak it Serigne Babacar si mi nga xam ne moo wuutu woon El Hadj ndax bi maam El Hadj Malick génnee àdduna 1922 Serigne Touba maam Cheikh Anta la woo ne ko waajalal te dem gaaleel ji ma sama xarit googu nga xam ne génn na àdduna kóllëre googu nag moo doxoon diggante maam Cheikh Anta Mbacke ak Serigne Babacar Sy ci njaal googu ba ñoom ñaar kenn ku ne jokkalante nañ ay ay ay ay kàddu kenn ku ne woy moroomam loolee nag moom nee na moom lay dox da ciy sant yàlla bu baax ba ko yàlla jaaralee ci turandoom bii di Serigne Babacar si muy xame koo xam ne nee na day jàpp rek ne yéeneem la xolam moo ëmboon loolu faf suñu borom daal di ko wane nee na nag loolu du ci def lu dul sant ci yàlla benn ndigal li dafa jiitu ci suñu borom wax jim ñu wax ne yéen jullit yi képp yéen ay mbokk kon nag fa asliqu bayna axwaykum waaye nag moom mu jóg di dox benn dox muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum moom nag ci loolu lay dox ruhamaa na baynahum fépp foo xam ne taalug diine nekk na fa dina fa teg tànkam ngir mën a barkelu ci jëf ga nga xam ne moom moo fi am waaye nag nee na mu ngi leen di seddal ne mu ngi sant yàlla bu baax ba mu ñëwee fekk fi mbokkam mii di Serigne Mamour Mbacke moom it ànd ak ak soxnaam ànd ak délégation boo xam ne délégation bu yaatu la Serigne bi moom ak ñëwam dafa ne woon daara ji yëpp sax nañ buubu ñu daal di ñëw gàmmoo si fii waaye nag nitu yërmande la mu ne ginnaaw mbir mu ngi doog a xew nañ dem rek sa tëj ca gurtu wa waaye nag ñi mu àndal ñëpp boo seetee kenn ku ne yor nga bànqaas ci biir daara ji Baye Abdoulaye Niang mii daanaka mooy jotal ay kàddoom waaye ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Cissé jiite fédération sant borom gaawaan yëpp moom teew na fi Pape wàdd mii tamit jiite magum taalibe yi teew na fi booy Cissé mi yor protocole sëriñ bi teew na fi Cheikh Alioune Badara mi nga xam ne mooy coordinateur u banlieue bi teew na fi bañ na ba ba muy jóg sax groupe communication bi nga xam ne moo nekk ci biir fédération bi dafa ànd ak ñoom ne jëf gi ku koy def ku nekk àdduna sépp a ko war a yëg ndax noon yi bu ñu gisee ñoom ñii ñu jàppante seen seen doole day nësax mu ne lii nag nañ ko tas àdduna sépp gis ko bu ko defee ñi jóg ngir taxaw ngir am lu ñuy ut def ci diine ngir wàññi ko bu ñu gisee ànd gi dinañ xam ne lii mooy diine lislaam waaye nag ànd ak suñu wayjur soxna Dieynaba Ba moom it mu ànd ak xaritam ñu teew ci bés bi loolu lépp lenn rek la mooy sant ci yàlla sëñ Babacar si ñu ngi lay ñaanal yàlla xam nga li sabab ñaanal gi mooy xolub sëriñ bi ci yow foo neewul tudd na fa sa tur ngir ñu ñaanal la ndax yëg gi mu yëg xol gu sell gi nga yor yëg gi mu yëg xol gu yaatu gi nga yor yëg gi mu yëg laabiir gi nekk ci yow nee na lépp lu mu fi jëf nanga ko jàpp ne sëñ Tuubaa moo ko jëf jëfu ko moom waaye dafa ànd ak ay bokkam gën koo jëf te it lii ak tàmbali la na maam Cheikh Anta Mbacke doon jëflante ak Serigne Babacar si nee na loolu fas na koo yéene jëflante ak yow ndax ak Babacar nga moom it Babacar la ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla def tawféex yàlla def barke suñ borom def defal ñu saadatu daare ni ñu ngi leen di ñaan ñaanit ngeen ñaanalal ñu ko yàlla nit la koo xam ne benn yitte la am ci àdduna mooy nan lay def ba ndaw ñi tegu ci siraatal mustaqim dëkk gu ne dafay dugg ibbi fa daara def fa jàngalekat daf ma waxoon bés mu ne ma sonn gi may sonn ci entrepreneuriat di defar ay kër uddi ay projet mu ne lenn rek laa ci bëgg mooy daara alxuraan yi di dund man mii day ci sama loxo lu toll ci salaire fukki jàngalekat ak ñaar weer wu jot dinañ jaar ci sama loxo te loolee lépp mbiram la daf may faral di wax ne balaa maa fay sama courant fay sama ndox wala sama téléphone nañ fexe jàngalekat yi yëg seen bopp ba noppi kon nag loolu jëf la gu muy def ñu mën koo seede ci kanamu bokkam te xam ne defu ko moom defalu ko boppam bokkam yi la koy defal di ko ñaanal suñu borom guddal fanam yàlla dëgëral ay cëram ñu ngi sant yàlla bu baax te di ñaan suñu borom subxanahu wa taala loolu la ma sëriñ bi waxoon naa ko ko tënkal li ci jekk lu nekk moom la safaan bi it nañ jàpp ne suñu bopp la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw sëriñ bi nee na ay kaddu yu gàtt la ci sànni. ginnaaw bu sant yàlla ba nee ginnaaw bi mu sante yàlla ba noppi nee na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafay sant Serigne Touba nee na santaale borom dëkk bi nee na ki ñu fi dajale ñun ñëpp muy sunu maam maam Maodo nee na yal na yàlla dolli leeram te taas ci barkeem nee na li fi dajale nee waxta si mu bi abdillahi jamian wala tafarraxu rek la nee na dana war a jàppante nee na te a tàqali ko nee ay bokk dañuy ànd ne di rafetal nee na loolu la sunu maam ñi doon dox nee na sëriñ Babacar si mi toog ne dafa mel ni xamante nañu ñoom ñaar téeméeri at nee na loolu li ko waral lépp nee na jikkoom rek la nee na jikko gor la yor ne jikko jullit la yor nee na ku am jom la ne nit boo bokkee moom melo ne di ngeen mën a ànd ne da ngeen a bokk deret da ngeen a bokk lépp ne bokk lislaam gi bokk alxuraan ji bokk penku bi ne bokk sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne yal na yàlla taas ñu ci barkeem ne sëriñ bi def leen a dimbali ne sëñ Babacar mii ne def koo dimbali ne ba mu mën a ñëw ziyaar si maamam Seydil Hadj Malick ne mu am ci mbégte lool nee na goo xam ni moom Serigne Babacar sax xamul ni lu mu toll ci sëriñ bi. nee mbégte moomu noonee la mel ci njaboot gi mu àndal yépp nee ñu ci bari tey moom sëriñ bi dimbali na leen mosunoo teg fii seen tànk nee fii seen kër la ndax seen kër maam la sëñ Bamba Cheikh Ahmadou Bamba ak Seydil Hadji Malick ne pied droite la ak pied gauche waaye génn jëmm la ne pied droite la ak pied gauche ne ñaar ñooñu génn jëmm lañu ne kenn mënta dox bàyyi moromam yàlla nu yàlla fayal nee na ginnaaw bi ñu leen nuyoo nee na ziyaar leen nee na ndokkel leen nee na baalu leen xàq nee ci ñëw bi nee cinq heures la ñu ñëw nee daanaka amatul luñ ci wax nee liñ ci war a wax lépp nee sëriñ Babacar Mbacke mu kabaroo wax na ko ji jii bu fekkoon ni ne rey nit dagan na ne kon ñu rendi ko sant si ne terale ko sëriñ bi ndax day Touba nee na tey jii Touba nee na moo ñëw Tiwaawan nee na kenn desul ne sëriñ Mamoor Mbàkke mi ngi ni toog ànd ak sëriñ Jiili ak seeni soxna ñëw nee na fekk fi ne Serigne Babacar Mbakke ak soxnaam ak taalibe yi ak soppe yi ak xarit yi nee kon kay Touba ne moo ñëw Tiwaawan ne ñëw seen kër ne ñu kontaan ci lool bég ci lool sëriñ bi ne xolam sedd ci lool ne gii teraanga ku la ko defal nee na bu waay waay bu la joxoon àddina ak la ci biir waay waay du doy ne kontaan nañu bu baax a baax bëccëg bii ne day bëccëgu cant ak bëccëgu ñaan ba tax na ñi nga xam ne ñoo ñëw ñëpp wàlli suñu fii tey buñ sañoon tey ku nekk dañuy jaar ci sa sant la ñaanal la yàlla li nga xam ni ne moom la Serigne Babacar mbakki mu kabbaroo wax ne wax ko ci moom mii nee na ci moom mi ci la ne waay waay ak mbokkam yu baax yi toog ne soxnaam si ne sëñ Mamour Mbacke mi ak Serigne Jili mi ne ñoom ñoo ko takki ne cakkel nee na lañ ca def lépp ne colonel Mbaye Ndiaye mi toog ànd ak Cheikh Gueye ñoom ñoo ko def kon nag bennoo bii yàgg na ñu ngi ñaan yàlla mu gën a sax gën a dëgër waaye waaye ba lépp lu ñu ci yaakaar yàlla may ci lu may na ci lu lu ko ëpp nee na sedd na ci biir ak ci biti ne ku nekk xam na tey jii ñoom ñiy toog jóge Touba kenn amul jot waaye xam ni cër bi seen cër la Tiwaawan gi seen kër la waaye moo tax ngeen tëj seen kër ñëw seen kër eh ñee ñëw wettali si leen ñëw indi fi lu nekk nee na teraanga bi ngeen di gis yëpp waaye waaye gan gàmm gi li muy diis diis yëpp waaye dafa mujj woyof ngir yàlla. mais eh, soxnaam dafa ñëw toog ni nee fekk moom mu toog fii nee soxnaam moom it toog fële nee mu ne comme soxnaam toog na nii waaye sëñ bi nee moom it na soxnaam ñoo toog. sëñ bi kàlla xanaa ñu jëm si Babacar wala bi wala bi sëñ Babacar nee na asalaamaaleykum nee na ginnaaw bi ñu leen nuyoo nee na ziyaar leen nee baalu leen xaq nee ci ñëw bi nee seen kër la ñëw nee daanaka amatul luñ ci wax nee liñ ci war a wax lépp nee sëñ Babacar Mbacke mu kabaro wax na ko tey jii nee na ne rey nit dagan na ne kon ñu rendi ko sant si ne terale ko sëriñ ndax day nee na tey jii Touba nee na moo ñëw Tiwaawan nee na kenn desu ne sëriñ Mamour Mbacke mi ngi nuy toog ànd ak sëriñ Jili ak seeni soxna ñëw nee na fekk fi ne sëriñ Babacar Mbacke ak soxna ak taalibe yi ak soppe yi ak xarit nee na kon kay Touba ne mu ñëw Tiwaawan ne ñëw seen kër ne ñu kontaan ci lool bég ci lool sëriñ bi ne xolam sedd ci lool ne lii teraanga ku la ko defal ne bu la dugg waaye waaye bu la joxoon àdduna ak li ci biir waaye waaye du doy ne kontaan nañ bu baax a baax bëccëg bii nee nañ bëccëg bu cant ak bëccëg bu ñaan ba tax na ñi nga xam ne ñoo ñëw ñëpp wàllu suñu fii tey buñ tey ku nekk dañuy jaar ci sa sant la ànd la yàlla li nga xam ne moom la Serigne Babacar Mbacke bu ko boroo wax ne wax ko ci moom mii na ci la ne waaye waaye ak mbokkam yu baax yi toog mais soxna si ne si Mamour Mbacke mi ak Serigne Djili mi ne ñoom ñoo ko takki ne ca kenn na lañ ca def lépp ne colonel Mbaye Ndiaye mi ngi toog ànd ak cheikh bi ñoom ñoo ko def kon nag bennoo bi yàgg na ñu ngi ñaan yàlla gën a sax gën a dëgër waaye waaye ba lépp luñ ci yaakaar yàlla may ci lu may na ci lu jublu ko dina xolam set na ci biir ak ci biti mais ku nekk xam na tey jii ñi toog digga Touba kenn amul lu jot waaye xam ni cër bi seen cër la Tiwaawan gi seen waaye moo tax ngeen tëj seen kër ñëw seen kër eh yéen a ñëw si leen ñëw indi fi lu nekk nee na teraanga bi ngeen di gis yëpp waaye waaye gan gam bi li muy diis diis waaye dafa mujj woyof yàlla ak mbokk mais ñoom ñëpp ñoo ci jàpp mais ñu ngi sant sama barab bi mais soxna Awa Diop ak soxna si ak soxna yi ñuy àndal yëpp mais soxna Fadjak bi ngi nii mais sunu borom sunu lépp day jóge Touba ngir yàlla ak bis day kenn des tànn bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla ñu teewaat koy at ci at kenn bañ a wuute ànd ak tal ak fekk xam naa ni comme sëriñ bi moom bëgg a dellu léegi waaye moo tax ñu bëgg ko yeewi waaye bu ñu soñoon tey mu fanaan fi ba suba wéttu ñu waaye comme que dafa am ngam waaye waaye doo bàyyi lu mel nii nee dafa bàyyi lu mel nii pour na bu ñu jógee fii tey nee na ci lu mel nii rek ci sëriñ bi ne lii mooy kàddu yi kàddu cant sama xol na ne lépp lu leen defal rek tànn ne seen cofeel ci moom ak seen mbëggeel ci moom ak seen taxawaay ci moom kon nag sëriñ bi nee na nga ñaan léegi yeewi la ne ak bi yéen a ko waaye mu tàgg mu ne yaay ñaan ndax bis bi sa bis bu waaye waaye nee na yow bis waaye sa bis ñaan nee na ñu ngi jégalu ci kàddu yi ndax ñaar nee bu njëkk bi mooy suñu waxu ci seen i kanamu kilifa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni al ulama warasatul anbiya nee na yi ñoo doon nee na yi nee na yonent yi amatu nee na moo tax bu yëkkatee kàddoom day ñaan ndigal nee na su ko mayee ne mu jël kàddu ndigal ndax ndigal jëfe nee li tax ndigal jëfe koy digal ki la mais amu ci njëriñ nee yow mi ñu ko ndigal nee na ci njëriñ nee moo tax ndigal jëfe la nee sëriñ bi ñu ngi lay déglu mbir bi rek nee mbir bi baatin la nee nee bu nee sëñ Babacar Ndiaye nee moo waral jël say bii nee muy benn Babacar nee mu jël sëriñ Babacar yokk ne booba kat boole ko Serigne Babacar Mbacke ne muy bis bu njëkk ne ci Tiwaawan ne boole ko Serigne Babacar si ne ñu jël Serigne Babacar si ne na ñu borom kër ne di Serigne Babacar si mu tombe premier xalifa Serigne Babacar si man premier gàmm ne lii am nga doon sax leen tabarakallah réew mi image bu ne nag mais image bu ne ci gàmm ci gàmm rafet na waaye bii image ñii war a ñii waa TFM religion dul seet si mel yaaw nee na war ngeen koo jël. day defar nee na day defar. di seet si muxtaar bi di doxal di seet si muxtaar bi doxal. di ko doxalee ak Cheikh Abdoul Amin. nee na di ko doxalee ak Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. ñu ngi béy problème bi mu ngi yooyu tamit béy bu ji lañ ko. nee na lii la ko. ànd nañ ko ànd nañ ko benn. xeex nañ ko nag nee na xeex na. parce que ab jiitu la nee na sëñ ab jiitu. jàngi na ko nee na jàngi na ko. ñii nga xam ne nee na ñii nga xam ne. sëñ Mamour ak sëñ Dili. yàgg na yàgg na fii ñoo ko seen cër nee na seen cër ñoo moom kër nee na ñoo moom kër gani suba nag nee na gani suba ñooy caral ñooy caral gani ngoon gani ngoon bu gani ngoon bi waaye waaye gani ngoon bi baat yi wax ci nee baat yi wax kon tabaraka allah kontaan nañu kontaan nañu dégg nañu dégg nañu di ñaan yàlla bu waay indi nee bu waay indi yàlla na faj yàlla na faj nee seen barke salaam ci tàllal loxo